ah waaw waaye Boubacar rek bala ñoo tàmbali ñoo ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaw waaw di delloowaat mbir yëpp yàlla mm-hmm. ci dogalam ak sañ-sañam bii mu feeñalaat mm-hmm. tey wane rek kàttanam mm-hmm. ci suñu mbokkum taalibe di suñu mbokkum jullit di siñ aata jaay di suñu jëwriñ ñëpp wallaahi wallaahi di jëwriñ ñëpp ñoo ngi koy jaal àddina wallaahi waaye ñoo ngi koy jàll réew mii di Sénégal wallaay ko jàll umma islam bi ñëpp umma bi umma bi ñëpp ñaa waaye rawatina nag yoonu murit wallaay ndeysaan Cheikh Maodo Mountakha yal na fi yàgg téwér allahumma tey jii ñàkk na kenn ci moom. Mm-hmm. ci jàmbaaram yi. dëgg la dëgg la koo xam ni ku ko xam xam kook moom. Mm-hmm. te seenug ànd it du àndu xaritoo waaye àndu boole. ànd gu Serigne Touba lal la. Serigne Touba lal ko ba pare doomi Serigne Touba yi boole kook moom. la ko mm-hmm. tàmbaleeg Sinablaat. wallaay ak sëriñ Saliou mii. Mhm. kon mu yàgg doon it lim doon ci moom. dëgg la looloo tax sax taxawaay bii mu ci am. ñun mhm. ñëpp ñoo ngi ko ciy ndokkeel. Mhm. Ah, eh, ndax wane ne ak mat kilifaam. dëgg la jug taxawu ko taxawul ko boppam. woo taali bi yëpp ñu ànd ak moom gunge ko. yët ko sëriñ Tuubaa. wallaay wallaahi li nga wax rek sëriñ Saliou moo ci nekk xanaa delluwaat lépp ci loxol yàlla. ndax suñu borom dafa diggoon jaam ñi yërmande. Euh, dig leen it njëggalam mm-hmm. ñi nga xamante ni saa bu leen musiba dikkalee mm-hmm. seen xel yëpp day delluwaat ci yàlla ak seen xol wallaahi te wax dëgg yàlla mm-hmm. moom day ñun jooyuñu fa mu jëm ndax ki mu doon liggéey la tax lépp luy indi rafet njort ci ab julit wala mbokkum taalibeem mu war koo mën a may mu rafet njort ci mbokkum taalibeem rek lu ko raw am nañu ko ci moom ba tax ndax ki mu doon liggéey la tax ndax kooku moom ci biir ab liggéeyal ko yàlla da cee déyle pajuk aajo addina ak alaxira mhm. ndax dafa waxoon ni faman araadal xayra fii mhm. kilti yi daaree ni falyalus bii falyalus bii képp mhm. ku ma topp na xam ni payooru addina ak ngëneeli add alaxira ñeel na la ak toppam ci Serigne Touba ak àndam ak Serigne Touba ak taxawaayam ci biir yoonu Serigne Touba kon ci lislaam loolu kenn na tabletu ko waaye maanaam vide bi mu fi bàyyi loolu la ñuy ñaan suñu borom combler vide boobu ndax dafa mel ni kenn gu mag ci biir yoon wi. Mm-hmm. moom la suñu borom jël. Mm-hmm. maanaam bisu tey jii. Mm-hmm. ba tax na ngi koy jàll ñëpp. te itam mu am lu jafe nag mooy sëñ Tuubaa nangul la lu toll ni lim ko nangul. waaw ah, da ko ko nangul. ndax euh, siñaatu dafa def ci yoon wi loo xam ni dugal ci ñoo xam ni. Mm-hmm. sos si loo xam ni sëñ Tuubaa nangul ko ko. Mm-hmm. loola luy wéy la ba faaw. wallaahi mooy kuréelu Hizbut Tarqiyyah. Mm-hmm. wallaahi ndeysaan. dafa ci yoon wi loo xam ni. ku sëñ Tuubaa nangulut doo ko mën. doo ko mën mukk. ndax créer sëñ Tuubaa société ci biir yoonam bi. moomale ko ko mu nangu koo moom. wallaahi ba nga ba nga ba nga ba ñu noppi laa gis yëf yooyu. di nga xam ne saa su nekk day am day am bopp. Mm-hmm. waaye saxaar gi moom day dem. wallaay ndeysaan. loolu yi man koo am ci biir Serigne Touba nga xam ne sa liggéey day tàbbi ci biir Serigne Touba. Mm-hmm. te dudu ca génn. loolu ak nangu la. ku amul cër ci Serigne Touba doo ko mën a am. wallaay ndeysaan. tey itam yéen mm-hmm. la waaye Boubacar xam nga ni am na ay seere yoo xam ni Serigne wu seere na ko ci moom. wallaay ndax Serigne Abdou day koo xam ni. Serigne Saliou la ko fonk daa ko liggéeyloo. waaw ah, daa ko liggéeyloo ay liggéey yu rëy. Ah, waaw liggéey yoo xam ni eh, sëñ Saliou moom la ko daa boole ak sëñ Béthio. Mm-hmm. day woo sëñ Béthio bu ñëw jox ko ko. Mm-hmm. daa daal di ko ciy mm-hmm. boo xoolee sax ndeysaan eh, am na photo boo xam ni ak ay image yu bari yoo xam ne ànd nañ ko. Eh, gis nga photo bii nga leen gis ñoom ñaar ñu taxaw. wallaahi wallaahi nga xam ne ak ngan la leen sëñ Saliou boole woon ngir di am ay gan. waaye woo leen ngir wàllu bernde yi. wàllu xéewal yeeg la ca aju. sëñ Saliou boole leen ko. nga xam ne a waa Hizbut Tarqiyyah mm-hmm. dégg nga euh, seen siyaar boobu yi nga xam ni. Mm-hmm. sëñ Saliou da leen doon wax ni. nit ki moom jàppewoo ko lam jëf mhm. mbaa la nga gis mhm. xanaa nga koy jàppee la nga dégg mbaa la nga njort ca moom mhm. loolu moom suñu borom nattoowuñu ko wallaahi daal di lay xamal ni seen jëf ci yoon wi ku gis na ko kër sëñ Tuubaa gi la ngeen fa def màggal gi li ngeen fiy def ak gàmmu gi li ngeen fiy def wax mu wax te boo nga xasee wallaahi wallaahi ndeysaan noonu moo ko amee ci sëriñ Saliou ni la ko amee ci sëñ Abdou Lahad amee ko ni sëñ Abdou Khadir amee ko ni it ci Cheikh Alaaji Baara mu baax mi mm-hmm. waaye noonu la ko amee Cheikh Sidi Maxtaar ak Cheikh Modou Muntaxa mi mm-hmm. ku moom ay ngërëm yu bari la dajale mm-hmm. te lu ca nekkee tey jii lay xam njariñ la kon wax dëgg yàlla seen ato noo noo noo ngi noo ngi ñaan mu gëj fi waaye xool yëpp nag li ciy tooy rek mooy jëmmam ja waaye ab liggéeyam moom ñëpp gis nañu ko te rafet nañu jot ci moom danaa xam ne nag kam doon liggéey rek boo mat a liggéey ndax si Muntaxa dafa am xass ci xassida yi ndax dafa liggéey ci xassida yi lu rëy ñaata nit a mokkal ay xassida tey ci ab liggéeyam ci ab liggéeyam xani xam foo dem fi mu ne waa Hizbut Tarqiyyah maanaam am nañ fa ay jëmm yoo xam ñoo fa nekk di yëngu ci wàllu xasida yi te yonent bi moo ne woon maxaas kenn nit ku gindikoo ci yow xayrun min ad-dunya wa ma fiha moo gën àdduna ak li ci biiram fexe ba kenn nit mokkal benn bayitu Sëriñ Tuubaa ma loolu kenn mënta xayma pay gi kon ki fexe ba ay nangami junni nit man ay xasida Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ni wa bi kitaabati rabbi rabbi kulla mutaalihin di wajhi rabbi daa ne xasidati faaxar xasaaidal kiram wali taqulu abadan xayral mara tuwasilu aqlaami ilallaahi xaabidan bila xalwatin wallahu abqa kama axna kon loolu rek doyoon na ab liggéey mhm. moo tax yal na ko Sëriñ Tuubaa teeru li mu doon liggéey yal na ko nangu te fay ko ko te di ko ko fula ful gu amul fu mu yem te yal na fi gëj liggéey bii mu fi bàyyi itam mhm. yal na ko Sëriñ Tuubaa ko ko doon defloo mhm. dëbboon ko kattan gi taxawul ko boppam ba moo yegg fu kawe njortu amiin amiin Cheikh Mamadou yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ak mbooleem njaboot Sëriñ Tuubaa gi koy jaal waayis bu tarxi yëpp wallaahi wallaahi di ko jaal murit yëpp maa ngi koy jaal nag xam naa ne tey jii. yëg na ni. Mhm. Ah, ñàkk na lu ko jege. dëgg la waaw ah, yàlla yàlla may xolum mu ca taxawu leen. ci barkeb Serigne Touba mhm. jërëjëf.